sama góor la sama xarit la fu ñu jaar daal di ñëw yaa ma gën a xam waaw ah. El Hadj ñu ko jaral dafa nekk nit ku baax nit koo xam ne foo ko woo muyu la ñun ñuy ay jigéenam duñ def jàpp ci bis bi waaw. Ah. <laughs> El moo ñu ko jaral waaw kañ suñu artiste bi dëgg du neex ah kontaan rek te duggaguñu jàppale booyu Medina bi rek yaa ma gën a xam. suñu xarit suñu doomu ndey moo xewle tey moo tax ñu ñëw wuy si ko rek ñun ñëpp. Mhm. moo tax ma bàyyi lépp ñëw rek pour sagal ko sama xarit la sama doomu ndey la kenn desul daal ñëpp a ngi fi. nit ñi laa dama dama gis nit ñi ñëpp kontaan daal dama kontaan sama xol dafa sedd. ah bisu El Hadj Keita beeg nii 24 doon xaar di ko xaar ay at weer ay semaine ay jour ay heure yegg si na nag tey la mi ngi nii. waaw ki ko jar ko jar moo tax ñu ñëw. artiste bee woote l'enfant du peuple l'enfant bien préparé kooku El Hadj Keita booy bu ndaw waaw tey dafa ne bis boo xamante ne bis bu mag la su ñun waaw tey hélas suñu fierté la doomu Fass Médina Gueule Tapée Colobane waaw doomu Sénégal bi yëpp kon tey dañu ñëw waaw xooli vaar lépp lépp génn instant yi le Neymar de la musique sénégalaise Hélas Keita leer na nañ instant ah, day nit ku oyof nit ku baax rek bu woote ñëpp ko war a ñëw wuy si parce que Serigne Bamba ñaanal ko lépp lu mu si séntu suñu borom defaral ko ko non dina fees incha allah si kàttanu yàlla ndax moo ko liggéey xoolam dong lañ koy fay incha kon lu kii wax rek loolu moo am élage moom ko yàlla fayee xolam rek jarul wax bi di bari day fees jarul wax jarul wax bi di bari fees moom da koy Elaj Keita bësam bi ni ma ko gisee da koo mérité ndax Elaj man sama sangala ah mu nekk en même sama buur man kuyaateem laa Elaj dafa baax yaru papam baax yaayam baax kon Elaj baax rek la mën a def sëtu commissaire bi waaw sama sang bu baax bi daal bësam bi kontaan naa ci trop xale Medina yëpp génn nañu wax dëgg yàlla Medina wuy nañ ko parce que moom moo njëkk a jëf nit ñi lu baax moo tax nit ñi ñëw fayee ko lu baax ndax El Hadj ku ko woo mu wuy la ku ko woowul mu wuy si la soo amee xew te biir Medina la nekk El Hadj day fël rek defal la surprise nga kontaan wax dëgg yàlla kontaan na. papaam suñ ñaar yaay bokk ndek baay mu nekk xale bu yaru nag di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan. li mu commencé nii yàlla na ci yàlla commencé daal yàlla na ko commencé bisimilahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin xale bu yaru la sama doom la xale bu yaru la maa ngi koy ñaanal nag. waa kontaan ci El rek dëkk ma dinaa ñëw di jàppale suñu doom El Hadj Keita rek ndax li mu bëgg suñu patron Bamba Fall moom mu ñu sagal jox ñu ay ticket rek na ñu ñëw leen seetaan ci El dañ koy ñaanal rek ci kaw ci kanam. programa. yow bu ñu yàq suñu photo. ba xam nga après après ñu waaw aywa nii maman yaa sañ sa lii. Pero ganamos, bajamos, oh garaawul dem yow bu ñu yàq suñu photo alors.